kon jawharatu kamal jullit jawharatu kamal la or bu mat bi moo def salaatu bi luy or bu mat mooy nit ku ak insaanu kaamil bu la neex nga dikkee ni bu fekkee ne fii insaanu kaamil ah moom moo man loolu insaanu kaamil moo dikkee ne indi jawharatu kamal te li ci gën a li ci gën a nekk ci biir ah jawharatu kamal juróom-ñaar fukki baat la ak juróom soixante-quinze léegi nag kan moo dund jund soixante-quinze xaw ma